ne mbaa fi ñu nekk nii waxtu dafa jot ñu ne campagne politique mu ngi waji ñew campagne politique lan moo indi parce que dañu wara fal ay maire kan moy fal maire population yi ñoy fal maire wote nak bu Amé. N'en wax ñaata façon voter mo am wote bu njëkk bi réew mi daje na ñu fal président de la république ngeen dem ci bureau de vote bi ngeen président de la république mu am li mu bëgg ñu paré ci bobu ñu dañuy ay député ngeen encore ngeen falat député ñu paré Nous ñu au conseil ngeen dem ngeen falat conseil économique ngeen fal bobu légui s'en waxtu jot pour ngeen fal s'en bop ngeen ku doy ngeen jël ko ngeen ci commune bi waxtu woote bi nu mu noon amee ba léegi bu yàgg ak léegi du benn léegi léegi nit yi ñooy xool ku leen doy ñu ne diw bi moo ñu doy yaa ñu doy yaa bu ñu wootee ba pare bu ñu bu ngeen ki leen doy ngeen tànn ko mu nekk maire waaye bu nekkee maire na xam ne am na lu tax mu nekk foofu duma taxaw fi mukk di wax ne dina def nangam ya karena kaddu gogu wa Malemba min nen ko ci man musuma taxaw fi mané Malemba dina len jox nangam musul am da ngeen di tok rek ngeen gis lu nek sama xel lu nek sama xol ma def ko ñun li tax ñuy politique ñatti mbir politik tax man may def politique pour amal njeriñ sama askan amal njeriñ sama askan amal njeriñ ñima bokal jamono amal njëriñ réew mi ma nekk muy Sénégal sama askan bu ma waxee tey tey tey tey ne ma bàyyil politique dama koy bàyyi xale yi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi seen wax xale yi jóg neen taxaw ñu ne Ablaye da ngay ñëw nga nekk candidat jigéen ñi ñu ne da ngay nekk candidat mag yi ñu ne da ngay nekk candidat mais man amatuma lu may wax dama nekk candidat boobu déclaré naa ko fii ci malimbaa ab lay Ndaw nekk na candidat commune Kouthiaba ku ñëw ànd ak ñun ñu ànd ak yow liggéey ngir ku caba man soxlu ma lenn lu ma soxla mooy nekk maire commune caba